jërëjëf mbokk yi seetaan RTT TV amaan nañu mbégte ak bànneex saa su nekk ni ñu leen koy defalee ah, ci seen jotaay bu am solo bi nga xam ni mooy seen rendez-vous jotaayu koor ah, ci biir RTT TV ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy topp tele bi ci seen émission yu am solo yi nga xam ne ñu leen koy wan saa su nekk waaye ñu ngi jël ab nuyoo ak ziar di ko jëmale ci mbooleem kilifa diine yi nga xam nekk ci àdduna yëpp ah, di ci jiital Cheikh Mame Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Euh, di ko siyaare bu baax Mbacke Balaye sant di ko ñaanal suñu borom toogaay bi yàlla na ko yàlla na ko yàggee euh, naal yi nga xam ni moom la naal ngir liggéeyal ko Seexul Xaddim yàlla na ci def lu koy njortam euh, ziare bu baax xalif général des Baye Fall sëriñ am ni Mbodou Mbend Fall jaare ci moom ziare njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp waaye dem fii ci Tiwaawoon ziar ba sëriñ Mbay Si Mansour di ko ñaanal toogaay bi yàlla na yàgg lool naal yi mu naal yàlla na ko àggale ak sagoom di jox nuyoo nuyoo kilifa diine yëpp rek ñooñu ñu jotali ni ko ñëpp waaye nuyu Euh, ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci kër maam alaaji sëriñ Muniru alxalifa euh, di ko siyaare bu baax te di ko jox wàccuwaayam di siyaare mbooleem njaboot gi yëpp euh, di ñaanal Cheikh Saliou Touré suñu borom gën a guddal fanam te ko wér siyaare njabootam gi yëpp mbokk yi ñu ngi seen jotaay bi nga xam ne mooy seen ñaareel ñaareelu jotaayu koor ci biir RTT TV ñu ñëwaat ci ak équipe bi nga xam ne saa su nekk ñoom lañ ciy àndal di leen ko defal ngir yee askan yi waaye ngir bëggal leen waaye waxtaane actualité yi nga xam ni moo am ci réew mi tey nag euh, thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee incha allah rabbi mooy Serigne Touba ak weeru koor waaw ñu fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne mooy oustaz Alioune Mbaye euh, bu ci kanamee dina ñëw euh, fekk si ci jotaay bi waaye balay loolu rek xam ngeen ni jotaay bi saa su nekk dañ ciy ànd ak sunu mag sunu xarit Khalifa Ndiaye bu defee ñu nuyu ko bu baax Khalifa ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. Xaadim fa tabaarakallahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw ba ma sant yàlla jul ci Seydina Muhammad ah, maa ngi baal wàq ñëpp rawatina weeru koor bi di ñaan yàlla yàlla ñaan la boole jéggal amiin ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim woor nañu fukki fan yàlla ñu yëggale ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin yaa rabbi jërëjëf Serigne Khalifa Ndiaye waaye ba tey duñ ci wéet ndax ñu ngi ci ànd ak suñu sunu maman ah, sa Diop moom it saa su nekk ni mu ñuy wétalee ci suñu jotaay yaay Absa ñu ngi lay nuyu. waaw bisimilah yàlla noonu commencé bisimilah rahmaani rahim eggal alhamdulilah rabil alamin amiin yaa rabbi sëñ Xaadim maa ngi am kontaante gu rëy rëy yu mm-hmm. bokk ak yow plateau bi dend ak xalifa Babacar mi mm-hmm. tubaar fakal ak suñ doom yu baax yi mm-hmm. ak sama doomu ndey Fat Begere di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla dolli sutura amiin yaa defal ñu jàmm di nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla sunu borom nii ñu duggee ci koor gi bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin lu ñu ci jaamu rabbi samaawaati yàlla nañ ko fulal lu ñu ci juum yàlla nañu ko jéggal. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf maman Absa ci nuyoo bu am solo boobu ba tey rek ni ñu leen koy defalee saa su nekk uh, ci actualité de la semaine bi nga xam ne dinañ leen ko indil di ci ànd ak ki nga xam ne mooy uh, uh, jibi moom moo ñu ko fas yéene présenté incha allah jibi ñu ngi lay nuyu. voilà sëñ Xaadim maa lay fay di nuyu téléspectateur RTT TV euh, di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi rawatina sama kilifa sëñ xalifa ak sama yaay ji euh, di nuyu waa Thiès yëpp euh, di leen baalu àq ci weeru koor bi. Euh, di leen baal àq di leen ñaanal jàmm lépp li nga xamante ni sàkku nañ ko ci weeru koor wi yàlla subhaanahu wa taala defal ñu ko ci barke Seydina Mohamed Sëñ Xaadim. jërëjëf Jibi nuyoo bi am na solo ba tey ci jotaay bi duñ ci wéet ànd nañ ceeg suñu si Awa Fall euh, borom vision politique awa ñu ngi lay nuyu. maa bàyyi nga nuyoo mbokk yi. voilà ñu ngi nuyu internet ak téléspectateur yu RTT TV di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ndokkeel aussi ci weeru koor bi ñu nekk nii. Mm-hmm. di aussi suñu kilifa yi nga xamante ne toogoon nañu doon ci plateau bi di ñaan yàlla li fi wax rek yàlla nekk xéewal boo xam ne suñu mm-hmm. bon dafa tasaare bi Sénégal bi. amiin yaa rabbi yàlla yàlla nangu ñaan yi mbokk yi comme ni ko Khalifa waxee léegi. Euh, ñu ngi ci fukki fan yi di waaj a dugg ñaareelu fukki fan yi yàlla nañ ci dugg ak jàmm euh, diggée yi nga xam ne suma borom diggée na ko ci yëpp euh, yàlla nañ ci dajeeg moom waaye yàlla nañu àggale yi di weer wi ba fekkewaat ay déwén ñu ngi koy ñaanal mbooleem umma islamique bi yëpp xalifa ñu ngi dugg ci ñaareelu fukki fan weer wi waaw fa tabaarakallaahu Cheikhul Khadim ko ñu ngi dugg ci jeexal fukki fan bi dugg ci ñaari fukki fan muy njëggal yërmande la mm-hmm. ak njëggal ak njëkk safara mm-hmm. ñu ngi dugg ci wóoru njëggal mm-hmm. te ñaan yàlla yàlla na yàlla boole jéggal ñu ñëpp yàlla euh, weeru nekk loo xamante ni nii dama naan géej la la suñu waxoon ni yàlla day Sénégal bu ñëw lépp luy garab bu ñu ko daggoon muy guy muy garab goo mën a gis dagg ko def ko ay xalima jël géej gi def ko daa boo ko ci soosee càpp ko taxul nga yegg suñu borom ba xam ko te loolu mooy digtale leen weeru koor suñu borom moo ñu ko sant boo waree ba ngoon boo xëyee suba ngeen asalaatu li mooy sa lekk du julli dootoo lekk amul kenn kuy taxaw ku lay tiim naan xaarim laay garde doo lekk doo naan yi yaay seet sa digganteeg sa borom ba nga xamante ni parce que waxatuñu morom parce que morom nekkatu fi amul koy gàdde kon digganteeg sa borom moo fi nekk. nit nag fekkee da ngaa xool sa digganteeg sa borom ba doo teg fi loo xam ne daf lay mooy loo si digganteeg sa borom moo tax yàlla nit daal bëgg na wóoree fukki fan. dégg nga yu mujj njëkk yi ci digg bi dama ko def njëggal. ñi ci mm. bu mu la yërëmee. nit ki bala nga ko jéggal da koy yërëm soo ko yërëmee ba pare jéggal ko boo ko jéggal dafa ko njëkk a sawar yàlla ne lii nag koor maa ko fayal sama bopp du ma ko jox kenn du ko jox benn mbindeef ni ko sa jaar ñii kat wala ñii la dem fay jox naa la koor bi joxal leen su ma baaree dina am lu am déng-déng day am kii danaa wóor moo naa lii laa war naa mais yàlla danaan maa gën a xam sama jaam ni maa ngi sama bopp koor bi jël weeru koor sant ñu ko ñu koy jëfe jëfe mu sell yi parce que nii ko Sénégal di doxale xaw ma beneen réew te sax man na su ma neexee ni beneen réew ndax soo demee ci réewu Maghreb euh, la ko commencé ci Arabie Saoudi mi nga xam ne mooy ndey gi réew soo fa yeggee ku wax dañu lay teral ba nga yaakaar teraange fi la yem waaye Sénégal yi yàlla dafa ñu sutura ak mag lu baax ñu ñu moom euh, def teraanga ci suñu bopp ba nga xam te nit ñi jàngal ñu ko ba nga xamante ni weeru oo ñëwee kenn ku ci nekk lay xintewoo même boo ñëwee ñetti tànn bi dañuy équipé nag sa morom mën ko <laughs> su ndogu jotee nga seen kenn ku nekk Sénégal xaw ma lu fi waay maa ngi ndogu ma naan ma kafe naan ma dara. Mm. déedéet su tàkkusaan jotee rek kenn ku ci nekk di nga baxal sa cënal kafe jox sa mbokku jullit même bu dee chrétien nga sax dinañ jox nga naan xool nga foo xool nga doon xamul lu mu xool mbindeef nga rek. Mm. te am na loo xam aussi da nga ni dañuy waxtaan sëriñ bu mag muy Seexul Xaddim ak weeru koor amutoon notion bu bari wax naa loolu bi nga ma waxee mais nag lu waay ñàkk ñàkk ñàkk digg gis na teraanga yi nga teraanga yi nga xamante ne nii loolu ko Seexul Xaddim ñu ngi koy def ci weeru koor xalifa général de lépp luy Baay Faal amatoo jot amatoo yitte sa soxla mooy nag togg jëpp Xaddim togg jox jaamu yàlla yi lépp loo am ba yéene miraas sëriñ miraas sa bopp ñu lépp maa ngi xalifa Cheikh yàlla fi yàgg tégal sëddal ko njaboot ñu ko jaamu yàlla yi kon xaadim euh, koor foofu la ñu toll ak moom ci Sénégal te am naa yaakaar ne bis bu nekk ak saa su nekk dañuy gën a jëm ca kanam ndax ndimbalu yàlla ak yonent yàlla Muhammad xalifa euh, dugg si bi am na solo exposé bi aussi am na solo euh, ñu siyaare suñu mbokki Baye Fall yi euh, taxawaay bu am solo boobu nga xam ne xalifa ji ñu ne ko ñu am ko ci weeru koor daanaka foo fekk Baye Fall fi mu ne nii daanaka amatul jenn yitte lu mu ndog ndogu mhm. di ko joxee loolu nag jaamu yàlla bu kawe la kon ñu ngi leen di ndokkale ci weer bi te di leen siyaare baax a bu ko defee xalifa di leen dikkaat loolu ci waxtu yaatu di ci dikkaat mhm. waxtaane Baye Fall yi seen taxawaay waaye waxtaan sëriñ bu mag bi ak weeru koor mm-hmm. incha allah rabi dinañ ci dikk ci kanam waaye ni ñu koy defee saa su nekk ànd ak jibi euh, ci sunu actualité de la semaine euh, mu fas yéene ñu présenté semaine bi ñu génn lan moo fi am ci ay information voilà jërëjëf sëñ Khadim Euh, semaine bi ñu génnee nag mu am ay actualité nga xamante ni jot na ruus euh, yi ci gën a fës sax bokk na ci li nga xamante ni moo di procès Mame Mbaye Niang ak euh, Ousmane Sonko ci fanweeri fan yi ñu weesu ci ci ci weeru mars mu doon procès ba nga xamante ni nag kii ko nga xamante ni moo di juge bi di Mamadou Yaxam Keita daal di teg ak daan ci ko nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ba mu toll si yi Euh, weeru kaso euh, avec sursis ak loolu nga xamante ne moo di amaan euh, ci deux cent millions bokk na ci loolu nga xamante ni moo gën a fës ci actualité yi ci semaine bi beneen bi ci bokk bi ci toppit mooy appel de cour bi nga xamante ni procureur bi xamante ni moo géré woon dossier boobu it daal dina ko soxla ci loolu nga xamante ni moo di procès boobu ndax jàpp na ne xëy na ko nga xamante ni moo di Mamadou Yaxam Keita loolu nga xamante ni moo di ak daan teg na ko ci Ousmane Sonko xëy na nekk loo xamante ni ci lool la doon xaar wala loolu la doon gestu ci moom ba tax nag euh, bëgg na defalaat loolu nga xamante ni moo di ak appel interjeté euh, ab appel de parquet ci jamono yi ñu dëgmal incha allahu rabi euh, beneen ponk bi ci toppit mooy avocat bi nga xamante ni mooy avocat Ousmane Sonko di Juan Branco ñëwoon ngir jàppale ko nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ci procès boobu autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal sax dañ kaa mujjee refoulé ndaxte ñoom jàpp nañu dañuy def appel à l'insurrection ci loolu nga xamante ni moo di ci réew mi di di Juan Branco rafetlu ko benn yoon ndax jàpp na ne liggéeyam lay def te war na mën a ñëw taxaw ko nga xamante ni moo di euh, moo di client am euh, beneen bi ci topp it mooy le docteur Babacar Niang mi nga xamante ni euh, yoon teg na ko loxo li tax yoon teg ko loxo mooy manifestation yi nga xamante ni weesu nañ ko ci ci jamono ci 16 mars bi Ousmane Sonko amoon ci ak tawat gannaaw bañ ko tuuree loolu nga xamante ni moo di ak liquide ba nga xamante ni kenn xamul fa mu jógee mu amoon ci ak tawat bu doy waar xamante ni moo di euh, clinique Babacar ñaa euh, di suma assi assurance di suma assurance euh, suma assurance boobu la nekkoon nag Babacar ñaa di ko saytu naam booba am na ñeneen ña nga xamante ni dafa nekkoon ay patient ku ci ku Euh, Doudou Fall euh, moom sax euh, dañoo jàpp ne kooku di Babacar Niang Dakar négligé maanaam paj bi nga xamante ne moo waroon ci moom def ko ba ba ba ba nga ba mujjee ñàkk ci bakkanam ñooy nga xamante ni moo di autorité Sénégal yi nag dañ di ko teg loxo waaye teewul nag ñooy nga xamante ni ñooy organisation médecins yu Sénégal daal di jàppale ko nga xamante ni moo di seen waay di docteur Niang ngir ñu bàyyi ko ndax xëy na liñ ko jàppee teguñu ko ci yoon muy tuuma boobu ñi nga xamante ni moo di assistance à une personne à danger boobu nga xamante ni moom lañ ko teg ci ndoddam euh, beneen bi ci mujj mooy 4 avril bi nga xamante ni moom lañ dëgmal incha allah euh, ñu daal di génn ak thème ba nga xamante ni force de l'ordre yi jàpp nañ ko muy euh, force de défense et de sécurité et de préservation des ressources naturelles ndax xam nañ ne Sénégal ku ko xam xam ko ci ressources naturelles gannaaw bu nga xamante ni ak pétrole ñu ngi koy saytu fii ci Sénégal ak yeneen yi nga xamante ni si lu jëm ci wàllu maritime bi la force de l'ordre yi nag tee nañ maanaam jàpp nañ seen i yoxo daal di na nag Euh, bis ni ki tey danañ saytu lépp la nga xamante ni moo di kaaraange ci loolu nga xamante ni moo di ressources naturelles yi fii ci Sénégal ba niñ koy nax saaye wala sax niñ koy lëmbale ci biir réew mi daal rafetlu wuñ ko benn yoon euh, ni ki 4 avril gi nag incha allah thème boobu lañu war a waxtaane yaatale ko ci loolu nga xamante ni moo di askanu Sénégal bi loolu moo nekkoon li gënoon a fës ci euh, ci actualité ci semaine ci semaine bi ñu génn muy lu am solo ji bi macha allah exposé bi am na solo euh, dégg nga Awa Fall dégg nga ji bi euh, ni mu ñu présenté actualité de la semaine bi nga xam ne moom la génn waaye li ci euh, gën a sedd xol mooy procès Mame Mbaye Niang bi ak Sonko muy mel ni jeex na ci jàmm. conseil bi jeex na ci jàmm mu nekkoon verdict boo xamante ni mun nañ koo tuddee verdict de l' apaisement ndax bu ñu xoolee conséquence yi am mooy apaisement tension politique bi nga xamante ni Sénégal moo koy dund. Hmm. bokk na tamit ci enjeu yi moo nekkoon l' éligibilité de Ousmane Sonko te gis nañ ni ay droits civiques am per perdre ko benn yoon. mu mel ni tamit verdict boobu Mame Mbaye Niang kontaanu ci. kontaanu ci ndax neen day dugal recours ndax moom mi ngi wax ni soxla na. 29 milliards yoo xamante ni mi ngi koy demande à Ousmane Sonko pour réparer dommages yi nga xamante ni manifestation yi causé woon na ko à ce à ce procès. Hmm. ba tey aussi dañuy dem ci euh, sorti procureur de la République bi nga xamante ni avant procès bi mi ngi doon une peine d'emprisonnement de de de deux ans dont benn année boo xamante ni ferme lay doon. ma rappelé aussi que ni le procureur bi moom mooy tëj. Hmm. le procureur day juste day demander au parquet li nga xamante ni mooy euh, ak ay charges yi nga xamante ni moom moom lay euh, porté ci accusé bi mais c' est au juge de juger le dossier que gis nañu juge bi ne verdict boobu la génnee mais néanmoins am nañu voie ay ay voies yoo xamante ni mën nañu koo utiliser mooy ay voies de recours yoo xamante ni mën nañu koo euh, utiliser pour contester la nga xamante ni mooy décision bi. ñu hmm. rappelé que ni première instance lañu ko jugé ñu ko yéegalee pour rappel soit verdict bi mën nañu koo kase. muy Ousmane Sonko liñ koy toppee lépp aussi tamit mën na nekk loo xamante ni day yéegal benn Ousmane Sonko. Hmm. kon ñu jàpp ni toujours euh, bu recours boobu duggee mën na nañoo xaar ci euh, situation bi bafoué ci ci côté yëpp. Hmm. beneen bi aussi tamit dañuy dem ci deuxième point bi ko sama frère waxee muy avocat Ousmane Sonko di Juan Branco. Hmm. nga xamante ne dañ ko refoulé euh, opinion bi di ko ñaawlu lu bëree bëri bëri ndax bu ñu seetee le camp de Mame Mbaye Niang am nañ aussi euh, avocat boo xamante ne tubaab la mais dañ ko bàyyi mu exercer ses fonctions kon jàppoon nañ ñu yoon la ci état Sénégal ñu bàyyi ki nga xamante ne Juan Branco pour exercer aussi loolu di euh, ay ay devoir. Mm-hmm. troisième point bi muy le interpellé ko pour euh, non-assistance à une personne en danger et ak négligence mm-hmm. le maire Bamba Fall maire de la Médina ak papa yi ki nga xamante ne mooy victime bi ñoom ñoo ko porté woon plainte comme dossier bi dafa nekk en justice dañuy bàyyi justice bi mu def ci liggéeyam. Euh, beneen point bi mooy le 4 avril. Mhm. thème bi nekk défense sécurité. la préservation des ressources naturelles. Mhm. des ressources comme maritimes. pétrolières ak euh, et cetera yoo xamante ni ci Sénégal comme ni ko xamee. Mhm. Sénégal ay ressources yu bëri génn na fi pétrole zircon lu ne génn na fi mais utilisation bi fi mu ne nii nekk nañ problème boo xamante ni yi ñu koy posé looloo tax suñu takk der yi jël euh, décision que ni dinañ saytu bu baax a baax li nga xamante ni mooy les ressources naturelles. Mhm. ci ñaan yàlla ressources yooyu Sénégal gis-gis boobu baax a baax. yàlla nañ ci gis seen bopp bu baax a baax ndax euh, Sénégal dëkku teraanga la mm-hmm. euh, waaye Sénégal dëkku jàmm la xalifa dégg nga exposé bi nga xam ne def nañ ko ci actualité de la semaine mm-hmm. ah, dafay mel ni Sénégal moom jàmm rek moo fi a mm-hmm. bi ñu ngi ciy jëm euh, te ñu ngi ciy séntu a sax dafa mel ni mën nañ wax ne nañ bàyyi lépp mu sedd rek jàmm ñëwaat waaw fa tabarakallahu xaalim la ma waxoon mooy dikkaat gis nga réew moo xamante ne nii dafa am mag ñu sell ñu fi tëdd réew muy maam Cheikh Xadim tëdd Cheikh Seydi El Hadji Malick maam Cheikh Nassir Sall kasa kasaalika mag ñu baax ñu tëdd fi dama ni jàmm ji am ak li ñu waroon a xalaat bëgg démb loxo mag ñaa ngi ci biir ku xalaatul ku xalaat bi dañ ko def procès nii rek jox Ousmane Sonko euh, jox Mame Mbaye Niang dëgg ñàkk Ousmane Sonko wala jox kii dëgg déedéet ñoom mënu ma yàlla rek a man te ñaanu mag ñu baax ñaa ngi fi. te wax naa ne réew mi koo bëgg a yàq yow yaa yàq. ndax Serigne Touba liggéey bu rëy bi mu fi liggéey ñaan fi yàlla li mu fiy ñaan. ba ñu def def ko exil yóbbu Gabon. dégg nga am na ci loo xam ne du ko ñaan fi ñaan fi ñaan ji am na ci loo xam kenn du ko perte. kon bu yàlla dogalee loolu tey ci réew mi ñett rek ñoo war a xeex ñett ñee war a xeex xam la ñan la ki nga xam dafa mos wóor ba pare ba génn ni may duggaat mos ak ki nga xamante ni dafa nekk dafa nekk ci diggu nguur gi xanaa ah, ñu duma baax damay kóor la duma wàcc mukk ak ki nga xamante ne mosagul yooyu mos ñett ñi yéen problème te ku ci nekk yaa ngi say raison te kenn ku nekk kii mos na ba wàcc ñu damay dool damay dool di waa damay mosaat kii ni maa ngi diggu mas gi dama bàyyi mu sipp sama loxo dégg kii ni man mosul ma il faut ma mos kenn ku nekk nag yaa ngi ses raisons kenn ku ki nekk la ngay wut danga man naa ni kaaraange Sénégal kii parce que soxna soxna ko léegi nee na euh, li nga xam mooy kaaraange Sénégal Sénégal ñu ngi jub li ñuy wax 4 avril pour wane li nga xamante ni mooy sunu kaaraange réew soldat def maaj ñu xam li ñu am ak li ñu ci arme président teewe ko yàlla ñu ko fekkee ak jàmm waaye dafa nekk loo xamante ni nii Sénégal nee na la moo xamante ni jàmm rek la ñuy ñaan yàlla te jàmm moo ñu jig te pour nga xam ne jàmm moo ñu jig soo demoon tey jii ca euh, dëkk yi di xeex nga xam ne sonn nañ gis nga Côte d'Ivoire benn waay daf ko nettali démb mu ne ma Côte d'Ivoire bi ñuy xeex pour nga jógee euh, Abidjan ba dem Yamoussoukro hmm. lépp da gis fruit banana pomme coco yëpp àll baa ngi naan guerre bi li muy métti métti bu ñu dawee di génn dëkk bi dinañ fekk dana naan waaye ñun bu dee ñun Sénégal léegi doxal fii ba dundu waa jël laa laal tax di nga dajale loo lekk loolu garab boo lekk doo ko dajale waxumaa la nga daw dem Tamba yi nga dugg pour rëcc wala nga jël Côte d'Ivoire bee doo gis loolee da ngay mujj dee kon ñun am na leneen lu ñu sauvé lu ñu gàtt lu ñaanu mag bu baax. ak barke moo ñu sauvé. muy loo xam ne dañ ko war a suuxat. muy loo xam ne barke boo xam ni nañ ko suuxat nañ ko suuxatee incha allah gaal bi du di du di dem dënd day def ñëw toujours ci kaw yoon. dëgg dëgg la ñu ngi gërëm ko bu baax yaa euh, bi euh, muy ab théâtre de la semaine dafay mel ne réew mi dé desuwaat na ci calme wala mën nañ ko yaakaar. man de bi ñu nee. projet Mame Mbaye Niang ak Sonko day taxaw damaa wàcc sëñ Fallou la jàmm ci njëkk mu juti ñu ne ma tax man leen yéene néeg la borom a ciy fanaan te ki nga yéene jàmm insha allah day am jàmm nga am ko soo ko yéenewul jàmm moom day am jàmm yow xaj la jàmm ndax yàlla mooy maye jàmm te may nañu ko ba pare Serigne Touba nekk fi comme ni ko xalifa waxe tubaab fakal la macha allah maam El Hadj Mali nekk fi maam Amadou Ba lañ jigéen ni ko dooma ko dàq. ak ñeneen ak ñeneen. maam li maamu laay. Baye Niass. ñëpp nekk fi te ñun ñëpp nekk Sénégal. ñun ñu am lu kenn amul. dañuy mel nu kenn dul mel. dafa fekk na nag borom caq day maytu borom baatu neen. Mm-hmm. ndax ki am caqam. ba pare am wéeruwaay mënoo ko ba max ba mu daanu. yow mi nga xam ne nag amoo wéeruwaay amoo caq amoo dara laal la nga daanu ñàkk laa laal nga daal Sénégal daal mba euh, bërigo la bu nekk ci kaw mbartal puus mu dem puusul mu dem ci jàmm ku fi nar indi jàmm di nga ñëw fi nar te indi ca ginnaaw nga jëm. incha allah mu mel ni jàmm jooju rek la ñuy ñaan mu moom mooy liggéey yu mag ñi dégg ngeen xalifa ni mu ko waxee dégg ngeen yaayab sa ni mu ko waxee dafa mel Sénégal moom dëkku jàmm la jàmm rek moo fi mën a am euh, fi yàlla suxat jàmm yi euh, ci barke bi weeru koor yi bu ko defee actualité de la semaine lañ leen doon présenté aussi euh, bu ko defee rek dañuy bàyyi jibi mbeng mu def ay kàddoom yu mujj ñu kii ko incha allah Ah, sëñ Xaadim di leen jaajëfal bu baax baax euh, di rafetlu jotaayu koor gi doon émission ba nga xamante nii nag émission bu ñuy rafetlu bu baax baax euh, di ñaan yàlla lépp la nga xamante nii def nañ ko ci mu am barke Euh, di ñaanaat yàlla loolu nga xamante ni moo di koor gi lépp liñ ciy ñaan wala li nga xamante ni ñoo ngi ko ciy jaam yàlla subhanahu wa taala euh, daal di ñu ko nangul di gërëm bu baax a baax kilifa yi ma bokkal plateau bi ak ñooñ nga xamante ni ñooy caméraman ni euh, ku ci mel ni prési ak di Da ak sama yaay jee taxaw maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ndax ñoom itam bu affaire bi yembee rek si ñoom la maa ngi sant waa RTT TV di sant bu baax a baax ko nga xamante ni moo di directeur bi ak borom bi di la gërëm bu baax. am solo Jibi Mbengue ñu sant ko bu baax gërëm ko ci actualité bi ñu indi loon waaye yóotuñu ci benn yoon ndax awa mu ngi toog si sunu wet moom it incha allah fas yéene amal liggéey ah, ci 4 avril bi awa lan nga ñu fas yéene indil. ko mm-hmm. ñu ngi jox di leen mm-hmm. ay sujet yu am importance ci lu jëm ci wàllu cadavre bi jërëjëf mbokk yi nekk ci réseau bi jaajëfal leen bu baax a baax sant leen ci taxawaay bi macha allah waaye gërëm équipe bi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko léegi waaye dalal nañu suñuy gan euh, fas yéene waxtaan ak ñoom ci Serigne Touba ak weer koor Aline lañ fi am oustaz Aline Mbaye euh, di borom xam-xam bu am solo nekk ci fii ci dëkk bi euh, di taxawu lislaam bi waaye rawatina yoonu murit moom lañu am ci jotaay bi bu ko defee rek mbokk yi amaat nañu fi mbégte dalal. ki nga xam ne mooy soxna Fatou Mbegere moom it di jàmbaar ci RTT TV borom ëttu kër gi ah, saa su nekk niñ koy àndeek moom ci jotaay yi waaye amaan nañu mbégte ah, dalal ki nga xam ne mooy Serigne Xaarim Akasa di jànkatu xaside boo xam ne tey réew mi yëpp xam nañ ko ah, mu ñu fas yéene ànd ak moom ci xaside yi mu fas yéene ci ñu cay bégal bu defee ba ñuy tàmbali waxtaan wi rek Serigne Xaarim yaa ñuy ubbil ci am njàng njàngum xaside bu ko defee ñu loo ko ci jotaay bi ndax Serigne Touba lañ fas yéene waxtaan tey ak weeru koor yan xaside nga ñuy ubbilee jotaay bi najeytu rabbiya bi shahri ramadan shahril amaani wal muna wal fayadan najeytu rabbiya bi shahri ramadan shahril amaani shahril amaani wal muna wal fayadan najeytu rabbiya بشهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوخا أكمدا قل بجلة الذين تجت قل بجلة الذين أفلحت تجت وربي مصلحه رمضان سما بيمني رمضان ثم بيمني رمضان رمضان الأقسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عسيم يغفر يغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خير نعم مكان من أخاف من شر نخم وهب لنا العذاب والمصايح وكفنا الآفات ورسا وحب لنا الحساب على طاعتي وكفرنا كسلا في اللوحات يا بريا لطيف يا معافي يا بريا لطيف يا معافي يا من له امر الورى يا صافي أزل سباك مكان دائي ولا تعاملنا بالابتلاء وانزل النفع وانزل النفع وانزل النفع مكان الدري وأنزل الخير مكان الشر وأنزل الحلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل السكر مكان الكفر وسج جميع المسلمين عاجلا وفجر المسلمين عاجلا سنقيم خوفا وحسنا عاجلا wala jéem waxaa fiim waltuf bihim wala tuwaaqisum bi kusrin san biim fa in asawka wa in asawka yaa ahad li qablati asawka bika ahad wa innahum أولادهم لا تقدر على بلايك لدف يسار قلوبهم لست تميل أبدا إلى أسواك من هنا إلى خداب لا كلمة كلا الجوارح أفدهم لخبي الخباي فلا تواخشهم bi ma laayen xusuk wala xumoo xabila si laayen faako yàlla xiyaama xalibal xulubi xalib xulubana anil xiyaabi waaxrina bi xubbi kulli muslimi wa najina min charri kulli mujrimi wa jaal jamial muslimina tura lana xila fa nuk fa dura wa jaa jamial muminina fi lhuda wal muminati suma fihim xada wa jaa jamial muslimina fi irtixa wal muslimati bisda خادم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سعيدين واجعل جميع سعيدين ناسين واجعل جميع ناسين صادقين واجعل جميع صادقين فايزين واخرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا والرحمه واجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم مناسا وضيرا واخرنا بحبهم ولجك واخر حبيبنا فلسلوكات وجد من اخوتي ونسبي في رحمة يوم سداد النسب وجعلنا هنا وانا حساب ساخبتة ساغرة تفضل الفنوسة وابلنا المكارم الأخلاقي وابلنا المكارم الأخلاقي ما تعب بن بلا سخاخي وجعل سخيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يحين للسخير وجعل قلوبنا أي برم تبع وجعل قلوبنا وجعل قلوبنا على تواددي bila tanaasuhin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburin wala tabaaxudin wala tanaafuri hatta nasiira muslimiina xaasiin wa مخلصنا صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية آمين ñu ubbilee njàng mu xasida mu am solo moom tubaarkàlla Ah, ñu bëggee ko bu baax a baax mu ci ay a ndax ci ab jotaay la jóge léegi rek ñëw fekk si fii nga xam ne mooy ah, émission jotaayu koor ci RTT TV ñu sant ko bu baax gërëm ko ah, moom nag day sama nit di sama xarit léegi rek ñoo bokk ñu am ci mbégte lool bu bu defee rek ñu dalal bu baax soxna Fatou Mbege rek ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ma yi. sëñ Khadim. sama waa plateau bu ñaawut bii. ndeysaan. nuyu El Hadj Khalifa Mbaye maa ngi lay mhm. ziar. Mhm. nuyu sama yaay am mhm. sax. di nuyu di la sargal na nga def tey Mauritanie. macha allah maa ngi daal mu nangu ko ndeysaan alhamdulilah maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu. ak équipe bi nga xamante ni ñoo fi jógee. di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. macha allah ginnaaw sant yàlla nag julli ci yéen. sallallahu alayhi wa sallam sant waa ñaari waajur yi. nga xamante ni ñoo ñu meññ. leen ñaanal yàlla ñu yàgg fii ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ak sama sang ba Cheikh na Cheikh Sadbu mm-hmm. doomu Cheikh Mohamed Badal ak Maamin mm-hmm. taalibal xayaat ali abibu jibi mbaxtaar mm-hmm. ndax du ma toog ci plateau bi du du ma ko tudd ndax mooy sama bunt ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam am na solo yal na ñu yàlla defal jàmm amin incha allah amin jërëjëf namoon nañ la lool nag ah, bu ko defee bu ko defee dañuy dalal Oustaz Alioune Mbaye Euh, moom mu ñëwal ñu ci euh, thème bi nga xam ni moom la ñu waajoon waaye balay loolu ñu siyaare bu baax njaboot ko saa Saliou Touré gi uh-huh. euh, ci semaine bi ñu génn ñu doon fàttaliku ñëwuk sëriñ Saliou Touré fii nga xam ni mooy Thiès mm-hmm. mu tombé woon ak juróom-ñeenti fan ci weeru koor Euh, mu nekkoon atum 1980 mu ñëwoon Thiès ngir euh, représenté fi yoonu murit waaye Thiès am na ci ndam ndax bi mu fi ñëwee liggéey na fi liggéeyal na fi lislaam waaye liggéeyal na fi yoonu murit euh, ba toirkal la man nañu wax ne génération bi nga xam ne tey ñoo ñoom la seen at xaw a féete suuf tuuti Serigne Saliou Touré am na lu mu def ci ñoom yar na leen ci lislaam waaye yar na leen ci dëggu waaye xiirtal na leen ngir ñu dem liggéey te sax ci jaamu yàlla loolu Touré ñu ngi ko ci ndokkale bu baax di ci siyaare njabootam yëpp Bamba Touré mi nga xam ne moo nekk ca bopp ba mm-hmm. ah, ñu jox ko nuyu kër gi yëpp waaye nuyu jëwriñu kër gi yëpp RTT ah, TV demoon na fa ba jëlal leen fa ay image xam naa di ngeen ko seetaan bu defee noonu lañ koy defee saa su nekk rek Alioune ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi bismillahi rahmaani rahim sadid lisaani nawweer janaani safi amaani wazid baraa'i wajal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa xalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci RTT TV ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu nga xam ni ku nuyoo bépp nuyoo boo nuyoo rek te du nuyoo boobu du jur tuyaaba muy baat yooyu yàlla na ko sunu borom def ci ñun def ko ci réew mi muy jàmm di nuyoo sango yu baax nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi tàmbalee sama ndejoor ne yonent bi nee na xeetam yi ndej dañuy ndejooru soxna Faatu sëñ xaarim ñu ngi lay nuyu di ziar soxna ab sax sëñ xalifa ñëw ziar ko bu baax a baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi beral nuyoo nag ak mbégte sunu mbokkum taalibe sëñ xaarim ak kasaa ci xasida yu am solo yi di ziar mbokk jullit yëpp eh, ci weeru koor di ñaan yàlla sunu borom sëñ Muntaxa yàgg fi kilifa diine yëpp sunu boroom yàggal leen fi ni ko sëñ Xaadim waxe sëñ Saliou Touré ñu yàggal ñaanal ko mu yàgg fi ndax sagu Cees la waaye dem ba Touba nag sunu sëriñ ba sëriñ Moustapha am sëñ Abdou Lahad ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér sëñ Xaadim ñoo am lool nag. ndeysaan ñoo ci gën a bëgg lool ñoo ci a bëgg lool euh, moom it macha allah muy kenn ku am taxawaay comme ni ñu ko waxee euh, bu ko defee rek euh, moom la bàyyi mu dugal ñu ci sëriñ bu mag bi ak weeru koor Euh, ni ñu ko waaje woon muy euh, Serigne Touba xam nañ ni euh, l'islam rek moo ko ñoroon waaye weer wi saa bu musaana teru am na ay mbégte yu ci daan feeñal waaye am na ay taxawaay yu mu ci daan am waaye am na it am ay may yoo xam ne am na ko ci weeru koor yi waaw. jërëjëf sëñ Xaari macha allah loolu day eh, day doon mbégte mu rëyee rëy nga xam ni kon daal maa ngi tàmbali ci ni sëñ Touba moom bu ñuy wax ci moom lu ko sunu borom defal boo njëkkee li mu defal sunu borom wala li mu daj ngir sunu borom. ku koy dégg rek dana mën a nangu may yooyu dafa sax ñaari baytam yu am solo yu may faral di wax ndax daa waxoon ni baana li kulli liman loxo wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aaya leer na ci képp ku am wilaaya rek ni man Ahmadou Bamba moom kaw téefu suñ borom laa kaw téef la kaw téef nag mooy koo xam ne li ñuy wax ci moom lu mu rëy rëy rëy rëy da ngay xam ne lii moom kaw téefu suñu borom la ginnaaw kaw téef gi daa waxoon ni subhaana man jaalani lil Moustapha moo jisatan wali jaala bi Safa tudd na seetlug borom gi nga xam ni moo ma def ma doon kéemtaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ku ne xam na ni am nay mojisaat doxloo na garab wax loo loolu mbëtt yooyu xar na weer wi ñaar waaye sëñ Tuubaa nee na man yàlla moo ma def nag ma bokk ci kéemtaanu yonent bi sallallahu alayhi wa li gën a màgg moo tax léppam lu mu def rek mu day lu yéeme sëñ xaarim weer wi di weeru koor sëñ Tuubaa da ko jàppe woon gan goo xam ni jëmm la kii nga gën a fonk ci àdduna boo la doon gane si ni ngay ñàkke sago noonu la am ñàkke woon sago ci weeru koor moo tax sax dafa ñoo jàngal ni boo bu ñuy wax ngën gi gan rek neel weeru koor xam nga am na ñu ko jàppewul ngën gi gan waddeen yeeg ñi sant siiseeg yooyu ñooñu weeru koor dañ ñaan sañu la xaw yàlla bu weeru gaaw a ñëw bu ñuy séentu weer sax dañuy dem banaan waaye waaye sëñ Tuubaa dafa doon yonent bi sallallahu alayhi ci weeru koor yonent bi ca rajab la daan toll di ñaan yàlla allahuma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa balaghana ramadan yàlla yàlla na nga ñu barkeel rajab ak sha'ban waaye yàlla na nga ni jotelu ci weeru koor sëñ Tuubaa nag sëñ xaarim ci weeru koor la daan tàmbali ci rajab la daan tàmbali di woo mag ñi di leen wax weer wii nga xam ni mu ngi ñëw muy weeru koor weeru tedd wi na ngeen ko waajal mu ngi ñëw nga xam ne ci rajab ilayhi qad tubtu fi sha'bana an rajabin mujaddidan fii ka fasad li bi ki kidadi bu weeru koor doy da ngeen ko yow maa ngi nii di la waajal weeru tuub nga waaye na nga yëg ne maa ngi la doon waajal ci weeru ci weeru rajab wala tàmbaleen di la waajal ma joxaale ci ndénkaane sax luy xew ci jamono sañ xalifa dafa wax maa ngi ni leen na ngeen góorgóorlu ci rajab ak sha'ban di foglu weeru koor ndax seytaane yonent bi daa jàngal ni su weeru koor teeroo koy tënk tëj buntu safara ubbi buntu àjjana yi waaye nee na soon soxna ab sa ku dangereux la sëñ Tuubaa nee na boo waajulul weeru koor ci rajab ak sambaan nee na moom seytaane day fexe ba dugg sa biir xool ci weeru rajab nen fa nen goo xam ne boo moytuwul balaa balaa mat ci biir weeru koor mooy waral ngay dégg kuy def njombi ci biir weeru koor ñàkk a waajal weeru koor moo ko waral weeru koor doo bàyyi ba mu dugg rek nga nga soog a ñëw moo tax neen waaw daa wax ma ngi ne na ngeen fuglu seen xol bu ci seytaane dugg mukk ci diggante rajab ak chambaan weeru koor da nga koy waajal ñetti weer boo bëggee gañe ma màngoog mooy war nga léeg sax ndeysaan nga dégg ci baat bu ñaaw ku la ne kaa def nangam ak kaa kii def loo xam ne am foo moo xam ni balaa weeru koor gee dugg fekk loolu boo ko waajaloon ci rajab day mel ni yaa ngi ci biir weeru koor moom nag nee na yàlla ni may waajale weeru koor bu nit wooree ba yeggal lam ci amee tuyaaba man bala ma ba ma waajalee weeru koor loolu la ma yàlla may ibaadu man lii xat xaad xaada xayra daan te wajjahat xabla shahru ramadaan li yàlla may ci weeru koor man su ma koy waajal rek yàlla sunu borom dima faye li muy fay ci weeru koor mu doon weer woo xam ni woore na ko nu xam nga ne ci réew mi si nga xaarim koor lu mu métti métti bu la leeree ni cin lii yow lañ ko tegal te di nga dog tàndara bi jaa ko moom ngay xaar heure bu dog jot koor war naa mën a sedd moom nag ndeysaan daa nekk fii ñu jële ko fi yóbbu ko ci géej gi xam nga ñu ko yóbbu ci géej bëgg a tàggale jëmmam jëg róom mi duñ ko jox mbuusum tàndarma moom dogee waaye ndeysaan ba demee ci weeru koor gi la gën a daw jaram ci wax ji nee na damaa nekk foofa ci tumuranke waaye ma jekki-jekki rek xaris cëxala alaya shahru ramadan rek nee na sama xarit bi daal di daal di teru muy weeru koor mu daan ne ko fa jatani yaa xalili bi surur huna yow yow yow sama xarit bi yow weeru koor dangaa ñëw bette ma ak mbégte coono ba mu mësoon am rek fàtte naa ko noonu yi sax gisatuma leen ndax yàlla seere na sama xarit man sama gan mooy weeru koor moo waral mooy wax naan ko yaa xayra dayfin xasida googu ca géej ca géej gi la ko binde nekk ci tumbaranke weeru koor gane si nga naan ko yaa xayra dayfin wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adad lii bu ci waxoon rek mu doy ah. bu ko woon ahlan rek ah. sowaay bienvenue mu doy ah. waaye mu teg ci wa sahlan waaye wa tarxan maa ngi lay yaata bila adadi est-ce xam nga ni sëñ Tuubaa na weeru koor mooy gan goo xam ne nga lislaam daa jàngale nee na sëñ xalifa gan boo ko amee ñetti fan gan man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim day fahu gan boo ko amee sa kër yonent bi nee soppil cin de ko toggal leneen loo daawul togg waaye bu defee trois jours nag delluwaatal ci njëgu kër gi sëñ Tuubaa nag nee na weeru koor gan la goo xam ne moo gën ci gan gi bëggul loolu moom chaque jour da nga koy ganale waaw waaw la zilta day fan kariman zairan abadan waaye mukarraman bi xira taati wa sadadi weeru boo koy teral nag nee na xam nga loo koy terale ay topp yàlla moom saa yi ñëwee bés bu ñëw rek defal topp yàlla goo defuloon démb nee na yaa ngi teral weeru koor moo taxit nag saan woor na koor goo xam ni nee na damaa dem woor woor goo xam ni li ci gën a métti mooy wax naa yaa xayra day fin bi mu teeree weeru koor ba muurum koor jot aw ma lu ma joxe muurum koor te su ma amoon muurum koor it aw ma ko ma ko jox ndax jullit lañ koy jox ma bindaat xasida defaat ko yàlla ne ko defal ma ko sa muurum koor bind sama xutba taxaw gisuma ku jul ku julli sama ginnaaw waaye nee na yàlla defal na ma tawféex koor gi ma bàyyi sama ginnaaw muy 1894 ak 1895 gi ma sóobu ci géej gi sama biir sama xol xàmmewul ñaari koor yooyu. nee na ma woor weeru koor yaa xayra day fin bi ma koy wax ba yaa ba yaasal bu saaraat ñaari yaay dugub dugul sama gémmiñ nee na fiñ ma teg. su ngoon jotee comme man yàlla damaa defal tawfiix farataak sunna yam ci man ndax Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ni ma bëggee yonent bi du ma fi nekk naan lii farataak lu sunna lu ma dégg ni yonent bi def na ko rek dama koy jàppe far damay def loola te bi moo ne dee leen tey dog nee na comme yooyu nag mënta ñàkk nee na bu ngoon jotee su dog jotee damay wàcc ba ci dex gi fekk fa ndox mu xatta xorom ak mbaalaa mbaal ca as nee na doge ko sama koor yéegaat su xëdd jotee ma wàccaat def noonu ba weeru koor gi jeex mu dese ma muurum koor moo tax nag nee na bi ma ñibbisee yàlla lim ma may ci weeru koor kenn xamul lu mu toll moo tax nee na yàlla sunu borom seede ne man weeru koor mooy sama xarit moom laa jàppe xaritam moo tax nag lii ku ko def ci weeru koor buñ ne nee weeru koor sunu borom defal na ko ci nangam rek loola da nga mën a dégg xam nga lu ma nee na samay noonu ak lépp lu ma musoon a mébét weeru koor moo ko may. weeru koor may na ma samay mébét nee na weeru koor sax may na ma loo xam ni ku mus a taxaw guddi di jaamu yàlla. ak kuy mës a dox ci yoonu yàlla weeru koor may na ma loo xam ne gàcceel na loolu yaquudu li chahru siyaam muxjila saayin wa qiyaam wa fawqa ajri zil qiyaam inda qadimin qudama weeru koor may na ma loo xam ne kuy ku mës a taxawal yàlla guddi li ma may weeru koor may gàcceel na loola waaye nee na weeru koor it may na ma loo xam ne koo mës a dégg mu jëfal yàlla dara li ma weeru koor may gàcce na la may kookaa waaye nag loola gis nga lu tax mu neex a dégg mooy ni mu def weeru koor daa waxoon sax ni samay may yëpp weeru koor ci yàlla seen borom ci la ma ko defalee samay noon sax yàlla ci weeru koor la ma leen notale sëñ Tuubaa nee na man awma noon kenn matuma noon waaye li ñuy tuddaay noonu nii nee na yàlla ñu mu ngi leen noté ci biir weeru koor shahri shahru ramadaana jamaa lil muna wala ida qad qamaa sama weer dëgg mooy weeru koor moo tax may yëpp weeru koor dajale na ko may ma ko waaye sama noonu yëpp weeru koor notal ma leen sonnu ma ci dara sama weeru koor daal moo ñëw notal ma samay noon loolu it mu mel ni kon tumuranke goo xamante ne bi tumurankel na ko weeru koor mooy war a nekk foofu dem na sax bay wax ni mboolem barke yëpp foo dégg barke rek weeru koor taxal na ko jox ma ko foo dégg barke rek weeru jox na ma ko wa jëhali chehru barakaat fii sakanaati abadan wa xarakaat yëngu ak samak dal ñooyam weeru koor dajale barke yëpp teg ko sama loxo ba mu yàgg sax mu ne weeru daal lim ma may ku toog naan R ku toog RTT naan da nga ko fay nettali di nga sonn ku toog fii ne di ko nettali eh. da nga sonn lool ndax loola wàlli yu gën a mag boo ko boo ko newoon Sëñ Tuubaa nee na weeru koor may na ma nangam nee na day wedam dootul mën a wax dara mu ne yaquudu li shahru rabiul awwal wa ramadan mufhiman kulli wali weeru gàmmu weeru yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak weeru koor may nañ ma loo xam ne boo ko waxee wàll yu gën a mag amul lu mu cee teg lu ëskee rek ndax lan mooy day wedoon loo euh, kii kon daa am na solo am na solo am na solo lool euh, am na solo euh, ci exposé bu am solo boobu muy Serigne Touba ak weeru koor waaye dégg ngeen ni Serigne bi doon waajale weeru koor ni mu koy indee waaye dégg ngeen tumuranke gi nga xam ne sëriñ bi defoon na ko ci tukki bi boole ko ànd ak weeru koor saa bu jubsee mu ubbee xelam waaye ubbi dëndam yàkkamti mu agsi ba fent ay way ci moom xalifa dégg nga ni mu exposé sëriñ bi ak weeru koor. ah Cheikhul Khadim fa tabarakallahu la euh, ñuy santaat yàlla bu baax. alhamdulilah. julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. waaye di leen sant sunu mag ñu baax. waaye comme ki ñu waxtaanee tey mooy Cheikhul Khadim. muy bàyyi bas ak baara maami danak Cheikh Mbacke. ah muy góor goo xamante ne nii. li mu liggéeyal sunu borom. liggéeyal ko ci yàlla Muhammad. jotagul kaaru faye ga la ko ci yàlla war a faye jotagul kaar ba jotagul kaar ba déedéet man Cheikh Khadim man taalibe si def xaj maali la suñu Babacar Si laa yaakaar waaye dama ne ku ko mañ dem sawar amoon tax koo xamante nii dafa nit man li may liggéey lépp mun xaadimu rasul la mooy mbindaanu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñu ñëwee ma dégg ci télé bi ñu ne Euh, tubaab bi am nañu benn photo. Mm-hmm. bu ñu génne France. Mm-hmm. Euh, Serigne Touba ci sol jàllaa bi. Mm-hmm. jaay nañ ko 40 millions murid bi wallaahi ndeysaan. man ne Serigne Touba de mu boobu mii boo ko peese woon kilo. déedéet jamono yam koy sol boo ko doon jaay doo doo jar ñaar fukk. tey ñu photo ko rek. <laughs> jaay ko 40 millions te loolu mooy premier prix kon am euh, bi li mu wax ci koor. muy gan koo xam ci Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul fonkoon na ko. wane na ko. wane na ko ci kan waa kanamu Cheikh Fall. di gërëm xalif général Baye Fall. di gërëm sëñ Saliou Touré yàlla di gërëm njabootu Cheikhul. Alay Ahmad Baro yëpp. parce que ñooñu ñëpp ñoo bokk ay doom yu bàyyi la ñooy doom yu nay di gërëm xalif général Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour. yal na ko yàlla sàmm taar. amiin yaa Cheikh Mamadou Mountakha borom mbégte mi dafa yàgg loolu ci wér amiin yaa rabbi Habib waaye def euh, euh, tagal son baaraam foofu rek ñu dellusiwaat mm-hmm. ah, ndax xam naa ne euh, waxtaan bi day soo a tàmbali mm-hmm. Alioune dégg nga exposé bi waaye soxna Fatou tey dégg nga Serigne Touba ak nattu yi waaye dégg nga ni mu doon waajee weeru koor dégg nga yéen ni ci oustaz indi tey jii mu xaw a wuteeg jamono ni ñuy waaje weeru koor weeru koor mm-hmm. daa xaw a doy waar daa doy waar xawut a doy waar daa doy waar. dafa doy waar lool. <laughs> weeru koor bi li mu ci daan bañ yëpp mi ngi ci am. Uh-huh. jëw yaa ngi ciy am. Mm-hmm. defante yu bon yaa am. Mm-hmm. te dafa dégg naa ñu ne bët dafa war a woor gémmiñ dafa war a woor nopp dafa war a woor. Mm-hmm. say cër dafa war a woor. dëgg la. <laughs> waaye suñu cër yi wooratul de. wóorul <laughs> déedéet. loolu garaaw na de. cër yee wooratul. maa la yëgal loolu. est que. ndax man ñi ni ko daan seetle di ko préparé sama maam. Hmm. Hmm. yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi amiin. Hmm. Euh, ñetti weer. sama sa li euh, sëñ bi wax. danaan koor a ngi waaj dama ko luy jëli. mu ni ma dama koy gàttandu. man ko gàttandu mu ne ah boobu balaa gën nekk xale. ndax lu ci bëri. su ma nekkee ci problème daayira ak affaire yooyu ak di dem Touba dem Tiwaawan mhm. ma daan jàpp sama loxo mhm. ndax nag wax dëgg yàlla mhm. dama koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm fa mu ne amiin yàlla ci barke Seydina Muhammad ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ndax lu bëri rek lu ci lislaam def na ko ci man sa maam moo ñu jàngal ko sëtëb yëpp nag ñëppay woor xale yëppay woor est-ce que. bu subaa. Mhm. na la leer ni nag bis bii nga noppalu di ko fay. di ko fay. kon mi lay sa mi lay mi lay tàggat am jobu koor. Mhm. tàmm loola ko ak tàmm loola ko. la waaye boo ko maam damaa sonn maam bëgg na sa trop. ndeysaan moom it bëgg na sa trop waaye nag deewul da lay teg ci raay bi. Mhm. bu la nii nga war a def ak nii ak nii ak jamono man de sama sët bi ñëwoon ni ma maam dama damaa bëgg a daw. maa koy jëndal maa a jëndal ci élection. yaa yaa ko ciy encouragé ndax am yërmande. xam nga loolu tamit. yërmande xam nga loolu du yoon. du yoon damay exemple. Ah. ndax samay doom sax dañuy woor. nga li ngay jàngale nii dafa am solo. waaw dafay mel ni wuyu yi. waaw ah, ñoo mën a tàggat xale yi. merci noonu la demee waaye ñoo leen tàggat. mais hmm. dañ leen tàggatul. dañ wanul nan la ak naka la. koor du caaxaan de. dëgg la ki nga xamante borom nee na moom kese moo koy wallaay ndeysaan. Mhm. mais ci du caaxaan. déedéet. lan la sant def ko faylawul ma Samba faylawul ma Demba. Mhm. man sama bopp sama wàll bopp man subhaana wa taala. Mhm. maay maa koy fayal sama bopp ndeysaan. mais mais mais nan ko fonk. benn weeru mbëndeel. wallaay da ngay xool douze mois. benn weer boobu di gën bu sell nag. nga ma cee xas sa bàkkaar yëpp ñaan suñu borom mu may la. Mm-hmm. buntu safara yi tëj ubbi buntu àjjana. Mm-hmm. ah waaw doo bokk doo bokk te ñooy teral la. Ah, da nga caa war a bokk boo amee xel waaye boo bëggee jëriñu àdduna ak àllaaxira da bàyyi xel. dëgg soxna soxna solo yaa sa oh. ah, gis nga jamono bi fi mu toll tey Sëñ Tuubaa ni mu daan beranoo weeru koor ak ni mu ko fonk woon ak fi mu ko tegoon ak tey jamono fi mu teg weeru koor. ah fa ndox daan taaree. Mm-hmm. ba léegi ni boo demee fekk fa tepp tepp ñi daan am yar di am diine di dund ci sariya ba léegi ñu ngi fi yar ci seenum njaboot man de dama part personnel wóor na Serigne Fallou Mbacke ñemew ma weeru koor jëw te duma ko woor wala duma ko woorloo samay doom ak samay sët ñéppay ko ndax nag am ba am jeex am diine ci dàq te weeru koor day yokk nit jom weeru koor ku gorewul mënul ko ndax gor mooy def wéet gor wéet lu ko gore weeru koor mën ngaa dugg ci sa nit tëj sa buntu lekk ba suur naan ma man génn te kenn du ko xam ndax biir du fet nga am jom gore fonk sa bopp doyloo yàlla suñu borom. Mm-hmm. xam nga yàlla soo ko doyloowul doo ko mën a jaamu. Serigne Touba dafa doyloo woon yàlla. waaye mm-hmm. mënul faadal sama waajur. ndax mm-hmm. ku dem nga Serigne waaye ku jàpp Serigne Fallou ngay woo. Mamadou Fallou ngay woo. sama xarit boobu nga xamante ni tubaab fakalla macha allah. ku ma fat doo fanaan biti. moom Serigne Fallou. barke Mamadou Fada. kooku ku mu fot doo fanaan biti. sama xarit boobu. ku mu fot doo fanaan biti. amul noonu sama doom gi ma ko tuddee sëñ Fall dama naan ko nag maa nëpp. ndax ma laa tuddee sama xarit. lu mu def rek ma ko bu may wax ak moom ndànk wax. <laughs> xale yi dafa mel ni kii nag ki ma ko tuddee laa bëgg. wallaay ndeysaan damaa bëgg sëñ Fallou. danoo bëgg sëñ Fallou. waaw alhamdulilah ah, ah, ah, ngeen ko. waaw danoo bëgg sëñ Fallou. <laughs> Cheikh Mamadou Fallou Mbacke amul noonu. amul noonu de. mooy Sénégal loolu la waxoon. Sénégal mooy Sénégal. boo ko defee sëñ Xaadim sama sëñ Fallou moom. <laughs> yaru. ndeysaan yàllaa ko yar dama ko yow la yar. est am respect. fi mu ne ma ne ko yow nag xam naa ne sa turandoo. dafa am lu mu ci joué. dafa am lu mu jël. barke Serigne Touba day woor sax te du weeru koor. dafa ñu nekkoon. mais nag lii sëñ bi wax nag am na leneen lu ma yokk. ndax man xaw ma woon ne nag weeru koor dañ koy waajal. ñetti weer. mu door a ñëw. waaw loolu sëñ Touba daal def de sant. jërëjëf dolli nga ma xel. doon naa ko nag Seydina Alim waaye dinaa gën a yokk sama pas-pas. bu rajo ñëwoon tey ci kàttanu yàlla ak maaxam. weeru ah. sëñ Fallou woowu. Ah, incha allah. dinaa ah. ko ci gën a waajal. dinaa ko ci gën a waajal yaa ko daan mooy ay ndab. jënd ay ndab indi kaas. moo man waaw ma du man dinaa xale yi jënd wesa sax mais man ni ma koy waajale mooy. comme ñun weeru koor mooy sunu saison ñun géwél yi. dootuñu mën a dem di dox dox. xam nga kuy wax doo làmmiñ boo noo koy rafet. yow yaa dem déglu tubaab fakal ci géej ñooy ñu ñuy bëggal ñu leen di bëggal. dafay daal di am lu ñu mën a leen dem leen jënd. dafa traitement bi ba mu mat. ah weeru koor la de. dem ba fenn. ma lépp tege rek. lépp tege ndax damaa ragal kooku ma génn. waaw man de sama sama kër xarit bi ma dogoo sax. waaw moom de soxnaam moom a natt lii ni ma waaj daal mu jekk si ak dem passé. ah moom boole na la fa am la fa nekk. lépp lépp rek ñu waaj la ko ko. soo ko defee moom nan la ko waajal. moom daal mu may seeraat dina am boppam. léegi nag xale yi dañoo Euh, weeru koor jotee ñu ne dañuy tëj saison bi. Euh, euh. ay xale yi nañ dégg lii waay. yàlla nañ dégg lii waaye te topp ko. waaw tëj saison te bàyyi tëj saison. ah <laughs> loolu la càmm si isaale di dem di def sorti. ne bëgg a tëj saison. dañuy tëj saison de. ne ca géej ga. dañ ko war a wax ne sax dafa wëllax ni ko. ay waay xale bu leen tëjee saison waay. dañ ko war a gunge. dëgg la <laughs> soxna Fatou dégg nga. koor gi dañ ko war a gunge. dañ ko war a gunge. lu bëgg a gunge. ku gàttalu kay xanaa boo wooree ba ba ba koor ga jeex dina gunge. foofu la ñuy des ak Seydina Alioune euh, koor gi dañ ko war a gunge dafay mel ni sëñ bi mag bi ni mu ko daan teeroo noonu la ko daan àndee ak moom ba euh, mbokk yi xam naa ñoom ñii dañoo waxaale lu am solo euh, te mu doon ab yóbbal na Fatou dama leen di dugalal rek benn benn waxu yonent bi. sallallahu naa xalis bi gudd na. moo ko ci olof rek bañ a indi baati araab yi waaye ma nga tàmbalee raxmu eh, an fu rajulin kii perte na ñu ne yent bi kan moo perte mu ne àdduna ki fi perte ñett rek la nit dina dund suñu xaarim cent cinquante ans bu ko ñett yi rawee perte na ñu ne yent bi kan moo perte man zakara indoho wala mu salli alayya ku dégg sama tur te doo julli ci man perte nga dégg muhammad sallallahu alayhi ku koy def te doo wax sa alayhi wasallam yaa ngi perte ndonte dugg nga àjjana am nga loo perte. bu rëy ñu yonent bi ak kan mu ne ku dund ak say ñaari waajur wala kenn ci ñoom ba gisatoo leen te defoo lu ci ñoom lu tax nga mën a am àjjana perte nga. man ne damay def fu ma waxtaanee lii yii ba pare su su may ñibbi faaw moom lu ma yóbbaaleel waajur wi nag ndax ndax gañe dara loolu maa ngi koy dénk ku may seetaan ku dégg lu mel ni ci saase wutaloo wutaloo jox say waajur. ñu ne ko ak kan mu ne ku fekkee weeru koor ba weeru koor xëy tàggu la te seetoo wi ci ci ay bàkkaar kooku daa perte weer la woo xam ne yàlla da koo def gis naa benn oustaz bu am xekk ma nee na weeru koor mooy oto mbalit oto mbalit day taxaw ci buntu kër gi corné loo am mbalit ci kër gi nga génne ko ñu weeru koor mooy weer woo xam ne bu ñëwee danga war a fekk lépp loola naqari woon ci yàlla dina la ko tere nga sëf ko mu yóbbaale ko mooy la lakum tattaqoon di yàlla lay wax sëñ Tuubaa ne dafa fonkoon weeru koor sëñ Xaadim ba ñaari weer yi da daan teg kado ku ne weeru gàmmu feeñ na mu jox la ko mën ngaa toog fukki at doo liggéey ndax lam lay jox ci weeru rasulullahi sallallahu alayhi wasallam muy feeñ mbaa ku ne weeru koor feeñ na nga ne yow mi yaa ko gis moo def na kéemtaane ci weeru koor weeru koor njaareem bu guddi jotee da ngay mel ni ay mbott yu ŋaax moo fay nekk foofu tollu nii ña ngay jàng sëñ bi ñenaan ñaafi la kaamil daana génnal boppam ci digg kër gi di naafilaal nit ñi kaamil dem ca jumaay njaareem ba samp ay imaam ñuy naafi la te kenn ku ne la la war ci weeru koor moo la koy jox daana gis xale bu woor comme nu ñu koy waxe mu jox la loo xamante ni bii say waajur sax mën nañ ci dund fukki at ndax lan mooy ngir soñu la ci biir weeru koor ñam ñamit njaareem nee nañ ñu weeru koor daawul doy foo fekk rek mba yi dañ koy dañ koy dañ façon lekk bu ne day am waaye bu fajar jotee nag lépp rek ñu daal di koy arrêté ba guddi jotati loolu lépp nag fonk gëm fonk weeru koor a tax waaye gis nga seen xaar bi yonent sëñ sëñ Tuubaa dañ koo laaja ni ko Mbàkke lu tax nga bëgg weeru koor xam nga sëñ Tuubaa nag dama lay wax lépp loo dégg ni def na ko wala mu bëgg ko rek yëgal ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu ne ko Mbàkke lu nga bëgg weeru koor mu ne ah bëgg naa ko ngir yàlla de waaye bëgg naa ko ngir rasulullahi ñu ne ko lu tax mu ne ci laa ko jox ko loxo weeru koor gisee gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma su ma ko gisee damay ñaan yàlla dootuñu tàqali ko nee na ma def intikaaf ci jàkk jooju rek nee na yonent bi ni jalañ ànd ak ahlu badrin mi noonu baaxal xadim sëñ Basiirooy nettali bàyyi Seex Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu téwér nee na bi mu koy njëkk a gis dafa mel ni rido moo dox seen diggante mu ne ko loo bëgg mu ne ko bokk sa gaay yi di ànd ak man mu ne ko lii ñii li leen may lii faat na mooy tour de ci lislaam mu ne ko waaye man de loolu laa bëgg guddi googu ci weeru koor la ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kaay ma may la garaatu xutbu zamaan manqué nga ñetti weer kenn mësu ko am te amul ñeen fukki ket waaye may naa la ko bis ni tey sëñ Tuubaa ne ko lii nag laxasaay laa koy def man sama gis jël na lii damaa bëgg daal ñii nga ñii nga xam ne dootoo tàqalikoo ak ñoom ma ànd ak yow te duma tàqalikoo ak yow lool nag firnde ji daa feeñ daa ñëw am ku ñëw ci moom ni ko Mbàkke gannaaw bu yàlla wéy ak yonent mu ne ko dama fa fekk de ginnaaw bu yàlla wéyee ak yonent mu ne ko dama fa fekk de waaw loolu mooy war a ne ñooñu fu ñu ñàkk rek maa nga fa daa mel ne mag sax nag bu ñëw ni ko Mbàkke ma dee damaa bëgg nga wax ma lu dig bi ak fu yàlla nekk mu ne ko ak bi dama laaj ko Cheikh Ibra Fall Lamp Baabul Muridiin dama laaj ko ko ak taalibe lu dig bi fekk sëñ moom Maxtaar Jóob nekk fa mu ne ko nag fu yàlla nekk laaj ko Maxtaar Jóob mais Baye Maxtaar Jóob doon ko ko ko xam dara daani ah ma de yàlla fu mu ne xew ma ko waaye yow mii de foo ne yàlla nga fa foo ne yàlla nga fa waaw waaw sëñ bi ne ko yow lii ma la lii nga tontu de du sa xam waaye taxoo goo taxawoon moo tax nga am nga yàlla sunu borom yëngu wi la lii. moo tax yonent boobu nag fekkoon ko ci biir weeru koor ci la def signature contrat yoonu géej gi nga xam ne neena lu ma sunu borom may ci yoonu géej gi ci la ma ko maye. sëñ Xalifa daa wax léegi lu am solo sëñ Tuubaa nee lépp lu ma doon jaay ci yàlla. njëg gi sax yàlla ci biir weeru la ma ko joxe. xam nga sëñ Tuubaa daa bàyyi faaraxtuhu wa huwa kax wal am lu ma xaabaa ba mu yàgg ma yokk ko faaraxtuhu wa walaj sëñ Tuubaa soo na ab sax dafa am 33 yoo xamante ne bii ñun ñii dafa daggante ñun mu araamal ko moom ci boppam daawul toog ba yegg suuf di daawul dox di gestu daawul lekk du bu suuna daawul wokkatu daawul bëgg doomam daawul nangam ba mu ma 33 yu dagan ci ñun bëgg doomam déedéet kenn sëñ Touba. bàyyi sëñ Mountakha mii. xam nga mooy boroom taar meeg mi. kaa jub sëñ Touba muy ñëw sëñ bi du mooyu. ne mag ñi wut leen sàkke doxale sama digganteeg moom. waaw waaw mag ñi tësër daan ni ah sëñ Bassirou tey jàmmam jeex na. ni mu bëggee a mbii nga xam ne ñi mu am ñëpp moom rek moo ci dëkk moom fukki at ak juróom mu yaral ko boppam jàngalal ko boppam mu jub ko mu def ko nii. mag ñi di ko jàmbat di ko jàmbat suñu xaadim ba sëñ bi dégg ci moom mu leen naa ah, xamu leen dara ni leen damaa jaayante sama xol bii kenn du ci ne ku dul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te xadim ay borom tuba yow samay gi xanaa gabon nga ko ngoore borom tuba gi xanaa gabon nga ko ngoore waaw waaw ay may sax xanaa aras nga ko jiine baay Serigne Saliou ba nga tekkee sa ami may fa njaarim cala bawal naat ba dooti nawati Kajoor borom tubaab Seexul Xadiim Mbakke ba nga tekkee sa ami may fa njaarim cala bawal naat ba dooti nawati Kajoor Seexul Xadiim ba nga tekkee si ami may ya fa Jurbel ca la mbaaxaan ak njoxomboore baay bi Cheikh Mamadal Faadilu yow la yàllay sa goox baay bi la yàllay sa goox yow la yàllay sa goox ci mboolem ñi fi jaaroon borom tubaab yow la yàllay sa goox ci mboolem jaaroon te ji wax sax malaaka yépp ko seere ay borom Tuuba maa soowu kenn cam faral ñàbb saw nos te jébalul ko gaaw ay borom Tuuba maa soowu la kenn cam faral ñàbb saw nos te jébal ko gaaw atum wom sa seeg léegi gis nan tayam di gàccee li démbam ranam dàq daaw borom tubaa murum yàlla maa ngi maa ngi koy wayal duma deeti fendal ba bis bañ ma ngaaw sababab tay borom tubaa mbake xar baax la raw na kuy xiyaas seexul xaddim raw na kuy xiyaas lu xel dëjul deesu ko raas bay bi sëriñ saaliwu foog raas nga raw nga góori faas sa kaañi teewe xarnu bi ay borom tubaa kuy kañ sa mbër te bañ a xaabaabal sa mbër matul mbër wala doole jaa bëriwul ahmadul xadim ahmadul xadim bur yàlla moo nu ko jox bur yàlla moo nu ko yut bur yàlla moo nu ko baaxee moo yàlla foo jële kii ay borom Tuuba bur yàlla moo nu ko jox bur yàlla moo ko yut bur yàlla moo ko baaxee moo yàlla foo jële kii Baye Cheikh Mamadou Al Fadilou kaag la fa ndam Serigne Fallou di Sëriñ Fagade di xalifatu fa Tuuba baay Cheikh Abdoul Karim Falil u Cheikh Mahamad al Fadilu rafet mbind man alxuraan di kaang foori teelar u Sëriñ Fallu gaynde jur na gaynde Sëriñ Bamba di baayam ku suur daw jërë ngeen sëriñ bi li mu wax dafa am importance ci Cheikh Khadim waaye man dafa amoon lu ma bëggoon laaj la ndax da nga ni woon maam Cheikh Khadim ca njaare soo weeru koor ma saana teew da ngay dégg ñu mel ne ay mbott yu naax lu tax yi ngi jàng xasida yi jàng alxuraan kon wane ne kon sëriñ Touba digganteem ak weeru koor alxuraan daaw ko sori bala maa puus tuuti ma gërëm sama sang ba sama xarit sama sëriñ. sëriñ am sa mbàkk mu sëriñ Abdou Lahad. bëgg sama mu xaada. sëriñ am sa mbàkk mu sëriñ Abdou Lahad. moom mu xaddam la may woowee. te mu xaddam ci yoonu Tijaan. di liggéey liggéey liggéey ci ba ba bay bëgg a dee. ñu door laa xaddama. moom mu xool ba ci kër Seex ne ma yow de yaay sama mu xaddam. Ah. waaw dama dama dama dégg sëñ benn waay. comme li ma wax sëñ Tuubaa ak weeru koor. mu ne góor gi ñëw Amadou Gueye Cuun. mu nga dëkkoon ca Tëngéej. Eh, dafa benn lal. jël ko sëñ Tuubaa ca Njaare. jël lal ba yaakaar Cheikhu Xadim bu ko joxee lal bi dina bég. ñàkk lay bég sax. waaye boo demee jox ko Cheikhu Xadim ca Njaare góor gi góor gi Amadou Gueye jox ko sëñ Tuubaa Cheikhu Xadim. Sëriñ Tuubaa jël jël laab mu ngi monté ba pare mu sëf ko ay téere waaw sëf koy téere alxuraan ba mu fees ñeen mu yaakaar Sëriñ Tuubaa lu lay def ci lan ba mu sëf koy téere ñeen mu yaakaar bu mu cee teg moom Seexul Xadiim ñeen mu wëri lan <laughs> eh? ak parfum si ñene cala ko ki cala mm-hmm. ko yaa kitaabal karim eh? mm-hmm. wa qalili mm-hmm. wa qabla kunta talibi kon li wax Seexul Xadiim dikkanteem ak weeru koor yaakaar ne alxuraan yi noonu la taxaw na ko alxuraan ndax dama gis ni boo demee Touba lu ñu jàng jàng xasida bu amul dégg da nga xasida mi ngi jàng waaye alxuraan bi sax dama naan est-ce que ëpp ko may laaj ndax diggante Serigne Touba ak alxuraan fu mu toll woon jamono yooyu. jërëjëf laaj bu am solo. daa waxoon ni naa jaaniyal munzilu bil qur'aani xataa gadawtu mawrida zamaani maay rootukaay waay mar yi ku mar ci yàlla ci man ngay rooti waaye nee na loolu yàlla déewante gu ma déewanteeg alxuraan moo ko may da ko daan digle nag dafa wax mag ñi ni leen te nag da wax lu tax ñu sawar daa mos a wax ni nañ bind ramadaan muy weeru koor ñu bind ko mu ne nañ wàññi araf yi mu ne juróom-ñetti araf mu ne nañ bind alxuraan ñu bind alxuraan muy juróom-ñaari araf mu ne képp kuy def bu weeru tedd wi teroo nga di ko terele alxuraan nee na ñu ubbil la juróom-ñetti bunti àjjana yi ci barke xuruufu ramadaan daal di waxaat képp kuy def weeru tedd wi bu teroo nga di ko terele alxuraan ñu tëjël la juróom-ñaari bunti safara yi ci barke xuruufi alquran nga xam ni dafay wax ni weer wii mooy weeru alquran sëñ bi daana def kéemtaan gune ci alquran xam naa daa waxtu wee ñu ko dul may daa am ñaa ñetti naari gànnaar yu jóge woon gànnaar biñ ñëwee ñu ne nañ seeti seen soxla kenn rek ko mën a faj mooy këriwu nit ku ñuul ñuy wax wàllu nit ku ñuul mook ko mën a faj biñ jëmee biñ li saxaari sañu xaayam dañ ñi moom dégg naa ko naqaree gis la ñoom ñoom naari loolu la ñu wax waaye li ñuy listixaar ni suñu aajo dana faju ci moom bu ñu demee mën koo gis mu yomb rek xam nañ suñu aajo dana faju far yàlla fañ jaare ci bunt bu soow bi fa lañ fekk sëriñ bi ñu nuyoo sëñ bi feneen mun leen na ngeen na ngeen na ngeen jàllewaat na ngeen wiir ci bunt bu mag ba la ñuy gaaw gaaw ni dañu ñëw fekk sëñ bi di leen xaar kenn ki la wax sëñ bi dañu ko man day damaa yore bor loolu gàllankooru ci ma bëgg nga dimbali ma ci mu jox ko loo xam daa yem képp ca bor ya kajares ni ko man de dama bokk ci fay kooku nag laa bëgg a wax sax nag ni ko man dama bokk ci famille boo xam ne ko mokkoolu alxuraan duñ la kooku ab shérif la ab la waaye sëñ Tuubaa sëñ mu ne sëñ bi dama bëgg nga ma def ci alxuraan sëñ bi joxoñ ko ni ko bëggal sa moroom yi bëgg mu doon ko am fit nag ni ko ah man de lu ma ndey xawit li kër gi yaatu yaatu lool nga def ci man alxuraan laa bëgg suba ko jot ca timis mu del sawaat bo bokkaat ko mu wéy ñaar fukki isib ñetteelu fan ba mu defar ko muy fan wee muy muy muy muy vingt isib muy soixante isib yi sëñ bi ne ko nag digal naa la bés bu ne lu xew lu xewat del jàng ñaar fukki isib alxuraan yi loola kéemtaan la goo xam ne señ bi xam naa ko waroon topp ci biir alxuraan. dana ko da uh-huh. waaw kitaabun karimun min karimin mu karimin la waxoon. waaye dafa waxoon ne alxuraan mooy téere boo xam ne kitaabun bihi narju minallahi rahmatan. Mm-hmm. waaye wa nanju bihi dunya uxra minal karbi. Mm-hmm. sëñ Tuubaa nee na alxuraan man du ma ko jënd ñetti dërëm de. benn naar daa waxoon ne man du ma banque sëñ tubaa ku bind kaamil jox ko mu jox la loo dund téeméeri at comme mën naa bind alxuraan duma ma liggéeyati fii laay toog fu ma banque rek bind kaamil jox ko sëñ tubaa mu jox ko wax lu am solo bi macha allah ñu jàng uh, na fu mu tegal alxuraan waaye macha allah ak uh, njaboot tamit yar na leen ci ndax uh, njaboot gi boo demee Touba daanaka li yàlla nañ ko yàlla fayal mbokk yi nga xam ngeen ni yéen ñi ñu doon topp ci seen jotaay bi nga xam ne mooy jotaay ko Ah, tey man nañoo wax ne jotaay bi dafa ala doome waaw ah, ndax dégg ngeen Seydina Aline ak sëñ Xaarim Bakassa macha allah def nañu léegi benn duo boo xam ne tubaarkàll la man xaw na maa yóbbu waaye gis naa mère Absa daan bi <laughs> joxe ak yéen macha allah yàlla yàlla ah, yokk yokk fayal ñu Seexul Xadiim bu ko defee rek émission bi muy xëccu ci jeex ni eh, Oustaz Aline waxoon moo ci nekk ku bëgg a waxtaane sëñ Tuubaa daanaka boo toogee ci RTT bi da nga ko fi wax boo moytuwul du sotti xam naa ne rek foofu la ñuy tënkee jotaay bi bu ko defee euh, Oustaz Khalifa euh, nga yëkkati kàddu yu mujj yi euh, muy kàddu yi siyaar ak la ci weer wi bu defee ñu joxaat mbokk yi rendez-vous ndax yow saa su nekk ni lañ koy àndee ba koor gi jeex incha allah. ah fa tabarakallah yi tàggatoo bi mooy. ñaanal RTT bi mu jëm ci kanam. amiin yaa rabbi. ndax mbir boo ca nekkee. da nga ñaan da ngay ñaan. ni mm-hmm. la ñu ni bu fekkente ni mbër da laa bool. Mm-hmm. di mm-hmm. yàlla mu daan. mu daan ba ba ba ñu ba ñu daan ko. moom dana la war ko xanaa dana la war. da nga xaw a dee kon. <laughs> waaw te lu ñu bëgg RTTV euh, euh, gi yàlla teg ci loxoom ci barke Cheikh Xaadim mu ñu waxtaan. amiin yaa rabbi mu jëm ca kaw ca kanam. di ñaanal sëriñ bi. waxtaan am na solo. wallaay ndeysaan. waaye naka jekk ma xam njaboot Cheikh Abdoul Ahad. wallaay ndeysaan. wallaay ñàkk ki ñaan. wallaay ndeysaan. ah ca Pastef. ndax bu ñu njaboot Cheikhul Xaadim. njaboot euh, Cheikh Abdoul Ahad. dogal sëriñ Tuubaa yëpp dugg na. lu Sëriñ Tuubaa am ca kaw lépp dugg na xaajala dootu am kon ñu ngi ñaan yàlla xam-xam bi am na yàlla gën a dolli ko yàlla ci barkeen ci Muhammad di gërëm ñu ci plateau ñu bokkal suñu mbokk suñu jur tedd yu baax yi ndax ba nga xëy ba nga nekkee jigéen wuy jur dëgg la ah, Adja Fall ak euh, soxna Absa soxna Absa yàlla sàmm ca bu la am baax na lool ah Cheikh Khadim maa ngi lay ziar. jërëjëf ah borom xasida bi moom dama ko ziar dama koy ñaan yàlla. yàlla ma kasa def ko tawfiq di ñaan yàlla góor gi waxoon yow yàlla yaa xam na ngay def sa jàmm. mu ne yàlla jàppandal jafe-jafe ya. yal na yàlla jàppandal jafe-jafe yu caméraman yi. amiin ndax am na ci loo xam ne nit ñi ne ah rëbb moomul ko. Mm. wax dëgg yàlla nit ay nit ñoo taxaw. solo lool ci weeru koor di ak ñi njëkk bokkal plateau bi yëpp. di ñaan yàlla yàlla def tawféex. yàlla ñoom sutura. am teraanga. yàlla na ko yàlla sëmbatit ci réew Sénégal. amiin barke yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Oustaz Khalifa Ndiaye euh, macha allah taxawaay bu am solo moom it la am ci kër gi macha allah euh, fa saa bu ñu ko soxlaa bu ñu ko woowee euh, lépp lu mu jàppoon mu bàyyi ko ñëw ànd ak ñun ci suñu jotaay yi boole ko saa su nekk mu am ci ay xalaat naan defeel nii defee leen nii orienté leen nii yàlla nañ ko yàlla fayal moom it soxna Fatou yéen ñu gërëm la bu baax bàyyi la nga tàggatoo. macha allah. yal na yàlla dool jàmm. Hmm. jotaay bi yal yàgg. amiin. ñu koy def at mu jóg ci daraja Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa di santaat sama ñaari waajur yi rek mm-hmm. di leen gërëmaat bu baax a baax di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te ànd ak wér amiin yaa rabbi di santaat sama sëriñ ba Cheikh Macha Sadbu mm-hmm. doomu Cheikh Mohamed Fadel Dieng Maamin mm-hmm. taalibal xayaat taali abibul jëli muxtaar borom nim zaat borom saalixiin ndeysaan ñu koy waajal bu baax a baax xanaa di santaat rek. Mm-hmm. waa mouvement Asadal Ilahi. ndeysaan. wa Sadal wara waa ñu ngi leen di nuyu. def nañ conférence bu rëy tey. conférence bu rëy nag. tubaarkàlla. bu rëy lingeeru Cheikh na Cheikh Sadbou yi. Uh-huh. ak soldaaru Cheikh na Cheikh Sadbou yi. ndeysaan ànd koog waa mouvement Asadal Ilahi wa Sadal wara. Uh-huh. bu Cheikh Sidaati Gueye. ndeysaan. day ñaam nag maa baax lool ñu ko man ba Italie macha allah. ndeysaan def na lu am bis bi. macha allah te xam na ni daayira bii mooy borom. wax dëgg yàlla tey ñii ñii ñëpp képp ku fa teew di kilifa rek. Mm-hmm. ñii nan la sant nan la gërëm na la tatagal na. Mm-hmm. ndax bàyyi nga dara def dara ndax ñun. Mm-hmm. kon dañuy ñaan ci yàlla yàlla na yokk lépp loo xamante ni am nam ko fa ci ci yiw mm-hmm. ak ci barke yàlla nañ ko bokk ci barke yonent bi di nuyu waat nag sama waa plateau bi ñaan ñi baax lool nag ala daw mi na de ala daw mi na de riis na di ala a koy seetaan ah, ndax première kii bi ñu njëkk a def <laughs> ñëpp a ko seetaan di ma woo téléphone di ci bëgg lool muy waa jum waa parcelle waa mbur 3 dama bëgg grand standing ba mbuur kat ah, ba ca pël ba ci taw ñëpp a koy ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax macha allah macha allah kontaan nañu lool waa Cité Lamine tamit. Mm-hmm. ñu ngi bëgg ci yow. ndeysaan ak waa Parcelles. ndeysaan dëgg yàlla Jum. ñu ñëpp kontaan nañu. macha allah ndax émission bi jaar na ci yoon. ndeysaan. alhamdulilahi rabil alamin comme ban ko waxee ñu ñuy apprécier. waaye di tamit sunu PDG. PDG Mamadou Seck. mu baax lool ndeysaan. nit ku oyof rek def. wallaay ndeysaan lii ku soxor du ko def ku iñaan du ko def. déedéet ku xolam bon du ko def. yor say employé. Mm-hmm. ñëw toog di leen assister. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. dara dàq ko. kon dañuy ñaan ci yàlla yal na ko yàlla defal jàmm. dëgg la gën koo may taxawaay ba ci. ba ci directeur mooy PDG waaye mooy Baye laa li ngeen ak sama doomi ndey ji ndax du ma ko fàtte moom nag moom. Euh, muy Fama moom bàyyi ko foofu rek. ko wax normal bi nga tuddee wax sama xarit ba tubaarkalla macha allah ab sa ñaay ñaay maamu mbëri. waaw sa ñaay sama waa jooju. Eh. tey nag maa génne fii sama bopp. waaw fi nga génn baax na. waaw nii laa def. fii nga génne sa bopp. waaw fii laa génne sa bopp nga génne sa bopp baax na. <laughs> yal na yàlla doole jàmm ñuy waaj ko incha allah ah, ndeysaan ah, bu ko defee rek eh, dañuy ñëw ci yaar sa mooy mu def kàddoom bu mujj ah, ñu soog a dem ci Alioune dafay mel ni eh, ñu tëjal ak Serigne Touba li mu digle ci weeru kool eh, ci ab tënk rek incha allah soxna Afsa ñu ngi lay jaajëfal yi. seen xaadim xanaa kontaan rek. ba sama kontaan kontaan. ba sa kontaan kontaan. waaw continué. su ma sanoon sax wóor na yàlla du jeex. ndax tubaar fakalla macha allah ay njëriñ rek fi am. Mm-hmm. ñuy ñaan yàlla sunu borom yàlla yàlla may fan wu gudd. amiin yàlla may ko bépp jullit. yàlla nu yàlla di ko sax. Mm-hmm. suñu mboolem jullit. di ñaanal sama yaay jën ak jàmm bu ba jaay ci am ak jàmm cay rek. Mm-hmm. yàlla yàlla guddal fanam. ñu ne bu ba mbéen bu. suñu yaay yooyu nga xam ne bari wu ñu ñaar rek lañ. ak Mati yàlla nañ fi yàgg tëbër. di ko ñaanal bépp yaay. Mm-hmm. di ñaan nag tubaar fakkal macha allah émission bii mm-hmm. yal na ko yàlla ful. amiin ñun nag tamit déwénee ba ñu naan weeru koor bi dañuy defaat émission. Mm-hmm. yàlla yàlla soppi jamono. ci barke Seexul Xadim. yàlla nañu yàlla defal plateau directement. nit ñi di téléphoné di ñu jot. ñu yor xaaj di ko battre. nit ñi ñëw di ñu bëgg ci suñu sëriñ si ñu bëgg. yàlla na ko yàlla defal. yàlla na yàlla boole ci milliardaire Seexul Xadiim. amiin yaa rabbi. ci barke moomu du faatal. yàlla na ñu yëg ko ba yëg ko. ndeysaan amiin. DG nag dama koy ñaanal. Mhm. ndax doomi ñay kenn du ko ñaanal rëy. Mhm. da nga koy ñaanal gudd fan. waaw waaw. yàlla bu mu fakkastal. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla bu mu yàqu yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax doomu kees la. Mhm. ba pare nag jël nag xaalisam di ko investir ci kees gi mu dëkk benn dëkk ñaari gaar ku commencé jamono nag bàyyi nga ko xel. xaw ma xam na ko xam ko. ku commencé jamono ku commencé jamono. bàyyi nga ko xel. macha allah. ndax ku am qualité la. mu am ay valeur la. ku am personnalité la ku denc la. te riche na. tubaab fa kàlla macha allah. te riche trop. te na ma ne ko réewul bew. katu baatoo la. réglé na. Ah. am na éducation de base am na discipline. ba xam na boppam rek waaw dafa sax ci métier. góor ah. danañ saxal ci métier. waaw mu fanqal la gàcce. waaw mu ñu la na la loolu rek. Ah. sax ci métier moo ko may lii. macha allah muy lu am solo. da ngay yokk da ngay yokk. ñuy ñaan yàlla rek suñu tegu say. xel. kenn gënu leen ndax ñun nag sax léeg-léeg nag erreur. Hmm. ci plateau bi. mais mhm. bu ko nit ñi seetaanee foo gën ñu félicité la ñoom la. billaay technicien yi yal na yàlla wéral. yal na yàlla fal cat. yàlla muy ànd ak wér. ci barke moomu dafa am. amiin ko bu baax macha allah kàddu am na solo li mu yëkkati ko ci PDG am na solo ah, moom it ñu sant ko bu baax mooy Baye Fallou RTT TV ah, lu ñëpp war a def sax moom mën na mën nañoo def ko. Mm. du ci xaar kenn dañ ko ciy fekk si rek waaye du xaar kenn. jaajëfal ko bu baax bu ko defee si Ah, ci yow la ñuy eh, ñëw eh, bala ñuy ñëwaat sëñ Xaadim ak moom it eh, mu indil ñu li muy tàggatoo ci xasida yi nga indil ñu rek sëriñ bi li mu digle ci tënk rek ñu mën koo yóbbaale ci jotaay bi. waaw ñi seetaan ñu sant yàlla bu baax sant mboolem ñi nga xamante ni bi ñu ngi seetaan ak ñi ànd ak liggéey bi di ñaan yàlla yàlla na dolli jàmm yàlla yàlla dolli jàmm may ñu gudd fan ak wér sëñ Xaadim li ñuy def rek mooy ndénkaane ndax léeg-léeg boo waxtaanee ba xoli sedd day mel ni raxasum ndab waaye faaw na nga bàyyi ci benn nasiixa benn yóbbal mhm. yóbbal gi nag maa ngi ko jox sénégalais yëpp koor dafa metti waaye koor li muy metti metti borom xam-xam nee nañ li ci gën ñàkk solo mooy bàyyi lekk bàyyi naan moo ci gën a ñàkk solo hmm? koor li ci gën a oyof hmm. mooy bàyyi lekk bàyyi naan soxna see ko wax léegi hmm. sëñ bi nee na na ngeen xam ni koor tënkuwul ci bàyyi lekk ak bàyyi naan doomu aadama xelam sax daa war a woor tànk day woor bët day woor nopp day woor xel sax day woor ma demee ci masal ak sëñ bi loolu la wax léegi nag fi may tàggatoo dafa am lu am solo te penc mi léeg-léeg nga dox dugg ci biir marché bi gis ku kooram yàqu te mu ngi sonn lool te li ko te li ko yóbbu xam nga mooy lan li borom fuqahaa yi di wax mooy rëf euh, rëf unniya yéene ji moo yëkkatiku yéene jaa yàqu loolu nit ñu bare nga koy def te bàyyiwuñ ko xel léegi koo naanoo waaye da naan ah waaye koor gi daal sa waay léeg-léeg nga ko naan koor gi ko sëriñ digle woon li muy def bëggatu ca dara yéene ja dem na gars yi lu koor gi metti metti metti loo mar mar mar mar ne ah yàlla yow lii rek yaa ko sañ maa ngi koy def mu ngi métti waaye mu may neex waaye naan ah waay koor gi daal sawaay waay lii daal moom yéene ja ma ngay dem nit ñi nañuy bàyyi loolu xel loolu boo demee ci ñuy jàngale fiq bu ñuy wax ni yàq koor bokk na ci looy yàq mooy su yéene ji ji maanaam boo ne nee yéenetuma woor lii daal dama koy def ngir ñàkk pexe yaa ngi xiif yaa ngi mar koor gaa nga yàqu kon nag mbokk yi maa ngi dénkaani loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax sëñ bi daal la nee daal tënkuwul ci bàyyi lekk ak bàyyi naan ndax bu ñuy wax jàmbaar dëgg sëñ Tuubaa na jàmbaar dëgg ci ñaar lañ koy xame bët ak bët ak tànk waaw nee na jàmbaar dëgg mooy ko xam ne bëtam bii dina ko góorgóorlu ba du ko teg ci lu neexul yàlla tànkam bii dina góorgóorlu ba du dem fu neexul yàlla waaw kon nag foofu dañuy tàggatoo di ñaanal yàlla ku tawat yàlla na wér ku ñàkk yàlla na am ku am yàlla na yokk yàlla na nu gudd fan ñu jiitu ñëpp yàlla na sunu borom taabale ajana RTT ca kaw ca kanam incha allah rabbi taala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw Oustaz bu baax gërëm ko ah, waaye di bëggee mboolem koo xam ne yaa ngi doon topp jotaay bi ah, ñu nuyu ci bu baax suñu jigéen ah, soxna Absa Ndiaye di ko masawaat bu baax ci doomam ji nga xam bu yàggul te di ko ñaanal suñu borom doole ko tawféex mboolem équipe RTT TV mm-hmm. ko masawu di ko dalee ci président Mamadou Seck ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk yëpp ndax moom ci kër gi la nekk natt euh, bi dal ci kaw métti na waaye suñu borom mooy dogal yooyu mm-hmm. yal na ko yàlla may xolub yiw ñu koy ñaanal ci barkeb koor gi suñu borom jox ko lu euh, lu gën loolu te bu ñëwee yàlla na toog te jur jëriñ incha allah bu ko defee mbokk yi suñu xaalis moom la ñuy bàyyi mu dëjël ñu euh, ci xasida yi bu defee moom dañuy ñëw fekk si fii incha allah ci plateau bi ah, tëjal ñu ci xasida yi bu ko defee rek mbokk yi foofu la ñuy jaaree it mhm. ah, jox leen rendez-vous ci beneen jotaay waaye ñuy gërëm techniciens yi bu baax baax ah, li ko dalee ci président Mamadou Seck ndax tey mu ngi nii taxaw takk ndigg yi doon bàyyi faalu kër gi di liggéey macha allah ñu jaajëfal ko bu baax waaye jaajëfal Adama borom daal yu ko. léegi moom xam nañ trop. <laughs> waaw jamono yi passé xamuñu woon trop waaye léegi xam nañ trop Adama Dione la tudd ah borom daal yu ko <laughs> waaw. ba dangay ñu gërëm ko bu baax gërëm caat mu Serigne Saliou moom it macha allah ah, taxawaay bi am na solo moom it ci bëccëg ba léegi mu ngi ci liggéey bi takk ndigg bi moom it ah, ñu bàyyi ko Serigne Saliou waaye jaajëfal mbokk yi fi jaaroon. Euh, Soxna Awa moom it ñu koy jaajëfal bu baax borom vision politique waaye Jibi Mbengue borom actualité de la semaine ñu jaajëfal ko bu baax. Euh, Kara borom làmb ji moom war naa ñëw nag waaw moom xam naa ci jotaay yi ci kanam dina ñëw ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy jotaayu koor si ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Euh, moom mii tey këram laa dugg moom a invité. waaw moom soxnaan soxna Sidi. soxna Ndeye Sidi. moom it tubarkàlla euh, ñu topp tooma ba fi mu ne nii moom daanaka mën naa ko ne nii. macha allah ñu jaajëfal ko bu baax a baax si rajo kon nga ñëw euh, fii rek dugal ñu ci xas de ñu tàggatoo ko. Sidina Muhammad xayril wara. Sidina Muhammad xayril wara. Sidina Muhammad. xayril wara man xaadili xidmatu wa suwara sidina muhammad xad kaana akmalum xalxan wa ajmalum xulxan wa asdaxahum xawlan fa yallaahu sidina muhammad sidina muhammad sidina muhammad jikkoom ya ñoomat melom yaa sell cër ya rafet tey mustafaal mutabaal muxtaari yallaahu sidina muhammad buur yàlla ne sàkkuloon misloom ca gaa te dootu sàkkati misloom wóor ni yàlla sidina Muhammad moom lasul noojul gàngul teyyeel ye sewul daloore papaayewul moo janti yàlla ku sopp bàyyi faatu bintu rasool moo jekkaab taxawaay nakam genantu xesap reexam ju neex ja ak ñamal yàlla am li yàlla si na Muhammad ak sakkur yàlla wa ak seen ñëm ma ko dar ak tu ñu jekk ya ak mu ñaay bi yàlla sidina Muhammad mu ñaay ba day saf malax gu këf ci xiinu marax reexam ja gàcceel lambi gaa si yàlla Muhammad ak yéen a mi sëqi ak ngañ faf di melax ak la xam yu ratax yaak nu may baati yàllaaw Seydina Muhammad Seydina Muhammad al ma ma juddoo la juddi góor jigéen judduwul ca mooma at la semmal góor ñëpp yàllaaw Seydina Muhammad at ma ma juddoo weer wi di sikar jant bi sabal biddiw yi di way garab yi meññeen mi neex saf-saf yàllaaw mënatuma jekki te nekku may jooy sama sëriñ ba sëriñ Saaliwu Mbakke addina yaa ka mën a njooy sëriñ Saaliwu Mbakke waaju ko amoon ci sab xol koo mën a tee ñàkkit mu sew fi sam xel sëriñ Saaliwu Mbakke waaju ko amoon mu la koo mën a tee ñàkkit mu sew fi sam xel sëriñ Saaliwu Mbakke moo daan wax yàlla mi bindi jaam ñi rek yàlla mi bind jaam ñi rek moom ëpp ma ci jaam ñi man saalihu sëriñ saalihu Mbàkke moo daan wax man saalihu duma démbaleen man duma démbaleen su ma jiitoo taxaw xaar leen su ma taxawee xaat leen gisuma leen man Saliou danaa dëpp si leen Serigne Saliou wu ku baax ka dem na nii Serigne Saliou ku baax ka na nii Serigne Saliou Mbacké ma jooy ma jooy junni baat sama waaj mooma ta jooy ku ñàkk Serigne Saliou sa xol jooy nga bis bisi jooy Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne saaliwu Serigne moo daan wax jox leen ma ndaw ñi ma def ca la Bamba doon def ca mag ña nem yëllawuma ko man Saliou ma barkeer loo ko Serigne Saliou Mbacké takkal na koy mi daay yeneen ba boolooko kooki gaa yi Serigne Saliou yow doo ya am njëriñ Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacké moo tax ba xëy tunu maratunu jooyetunnu raggatunnu tiijiileey sant nannu kuma soppal sëñ Fallu Mbàkke ana soppayi sëñ Fallu Mbàkke ana soppayi sëñ Fallu Mbàkke yam na soppayi sëñ Fallu Mbàkke sëriñ Fallu yi boromu kun fa yëkkoon mooy boromu kun fa yëkkunu Fallu yi boromu kun fa yëkkunu Fallu yi boromu kun fa ana soppayi kii Seex Ibra Faal man ni Ahmadu Faal Sayar Njaay ma déggeen Demba Faal biiram njaboo ma cangaay ma déggeen Demba Faal gurjëg baay Lalla Faal ma déggeen Demba maa ngi jéglu baax yàlla moo dogal ma sonn lool waaw ndeysaan ah ndeysaan ndeysaan yow waaye suñu fallu nga waaye nag maa ngi sant baax tey gërëm Serigne Khadim mi Khadim Soumaré. yàlla xam na ni micro bi ma te suba ak léegi yaakaar naa mooy juróom benneelu micro xam ko sonn naa. barke Seexul Xadim xam na ci dara. waaye boo gisee ñu sawar ci tele bi man doore bi léegi ñu nag ñoom fu nu fekk dina gis cofeel dina am suñu jëmm ak mbaax gi nekk ci ñoom li ñu wax ci seen seen jëwriñ ji ci kilifa gi ndax ba fekk naa barab yu bari fekk ci barab yu bari yoo xam ni moom lay fekk mu yor caméra bi di liggéey liggéey bi ànd ko ko woyof te ak mbaax te doomu aadama liñ soxla ci moom mooy jikkoom ndax ki tax ñu bind ñu di di rasulullahi ci jikkoom la ko ñëpp nawee ci jikkoom la ko la ko yàlla taggee wéy naka la ala ànd ko ñii ma àndal plateau bi ñu doon ñu baax ñoo xam boo leen gisee seen bañ ngay njëkk seen ngir jàmm jeeg tawfeex waaye suñu xaadim nag yàlla daa dogal ba ma ñëwee jóge Tuubaa ba léegi ñëw Cees gi bi fi ñu ab saak laa nga xam ab saak fi ne tey bu ma doon ñibbi ay camion ñooy gaare ndax soxna yi day yéeg njaboot gi yéeg bagaas yi yéeg waaye bee fii ñëw ñibbi ki sax moo tuta yomb waaye bee fi ñëw ab saak laa gàddu ma sànni gestu rek gis Sëñ Xaadim Sumaare mi sama def naa fukki bis nangam yoo xam ne si Xaadim yëre yi may sol moo koy ñaw mooy ñëw ci ci bis ba di taxaw baas ba ah, di taxaw siis ba ba guddi guddi ma yor programme bi ku fa jël kàddu moo la ko jox nga xam ne mu mësa doon sama loxo ndeyjoor kon nag moom lu mu ne rek maa ngi ci biir. yàlla xam na ko. yal na yàlla gën a guddal fanam te wér cëram borom xol bu rafet la borom xol bu laab la borom xol bu laab la ku baax la yal na yàlla gën a dolli tawfeex ñun nag ñu waa waa télé bi nag ñun man xam naa ne ca kaw ca kanam dina dina am loolu moom lu ma gis la. lu wér la. incha allah dina gën a kawe te dina daj daj jamono kàpp waaye ñu nag yéen ba foofa rek incha allah rabbi jazakumullah xeran jazakumullah xeran aca wasallam wa sallimi wa alihi ma sahabi nujubi allahumma amin walidayya waghfir lil jami' amin rabbi ahli wa jumlati sahabi amin rabbi waghfir li kulli dhi ta'alluqin biya amin wa haqqan sa'adati ya rabbi amin rabbi altuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husna al khitam rabbana amin rabbi sallim ala nabi wa sallimi wa qdi bihi hajatu kulli muslimin subhana rabbika izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin